Njaay Doudou Njaay kat def na ci lamb loo xamante ni képp koo xamante ni nitu lamb nga wala nga xam Amath Dia wala ngay fàttaliku lu mu tuuti tuuti tuuti démb wala nga xam kuntul yaa dëkkat yi war ngeen a ñëw delloo xale bi yoo xam ak ardo loolu ayoo bale ci kattan yàlla waaye bu leen fàtte petit premier soir mardi moom tam ci arène nationale léegi dara jaar ci gën bu la neexoon yoon ne te boo ñëwee fii la petit teg ki la yónni bu ñëwee petit na koy dogal rek nga tëdd ko am ci ko toog ak moom bi ko ko wàcc waayam waaye da nga ne du ma yónni kenn petit sama morom la sama nawle la sama xarit la bés bii ma jox ko teraanga du tuuti man maay ànd ak sama délégation ñëw toog petit toog mu di ma xool ma koy xool les yeux dans les yeux yàlla yàlla sagal fii la sax yem fii la xool bu sedd yem petit bi ko ñaanee rek ñu ko tàmm nee na nag mu wax la ne la yow ak moom wax naa ko léegi bu jàppale jàpp na du seet ci moom ci secteur wala yàlla dem ci ñoom ñaar di nga ànd ak Thierno Fall Mbassa Mbassa Mbassa Mbassa ñaar di nga ànd ak Khadim Mbaye sama benn Mbaye di nga ànd ak ay imaam Thierno ñaar di ànd ak Thieli ay naaw naaw ana mu ak dama dama xarit ana Thieli waaw ceeb bi waaw waaw waaw waaw waaw mi ngi noonu. mi ngi ànd ak Makhura Sylla. Sylla Ndaari kooku nag xam naa ne bon nañ ko wutal après ceeb bi ñëwaat. mi ngi ànd ak Diola Ndiaye. mi ngi ànd ak Mansour Niane kooku baayam. mi ngi ànd ak Souleymane ak Cheikh Ibra Fall. Babay Maam Sey Ndiaye. loolu la yàlla jël na tam ana beneen mbir bi dañoo ñu présenté ko. ana mu ngi nii waa suñu tur. eh mu ñëw. wallaahi damay présenté damay présenté dama ko nii teraanga bàyyi ñu xam na lii lii rek mën nañu bëri grand combat loolu kan la yàlla yàlla may suñu ay ca Elton si ñëw ba tey Elton ndeysaan moo nekk adra ci moo nekk waaye yi sax la bari ay ca Yacine Thior ñu ngi naan ay Maos ñu ngi meilleur gagne ma Pape Diop jox ma ko li mu jox naa la ko ñu def bëri dimanche bi ko dimanche bi passé la bëree fii am fi ndam bëri mag yi nag laa bëgg ngeen jël ko ponkal yi ponkal yi parce que fii sama mbër la waaw ah, waaw waaw xoolal ma waa Sinthiou Rém Sol hee na lu xonk cur teg sa compagnie ba moom waas waaye Bébé Elton a ngi ne am na lu mu koy joxoñ Bébé Elton am na lu mu koy joxoñ. mas combat bu neex moo ne ci digg jéem hey nee na ko moom la wër waas waay ay waasul tër waay waaw ma bébé Elton ndeysaan mbay ti nangi noonu orka ma ngay wax moom bala trois béykat nu mu tuddati di ndaanaan oh ndeysaan Bison yaa ngay naaw ndax day ñibbi këram dem na ñaar ñetti baa ngi noonu hee ñeenteel baa ngi noonu nag ñeenteel baa ngi noonu xëj ya naaw nañ xëj ya dañuy ñibbi biñ dëkk soriwul waaw waa super picc yaa ngay naaw picc yaa ngay naaw mas picc yi bañ leen de ña di ngeen génn de was di leen génn ngeen bañ di ngeen génn de ña ngay naaw woowoo ña ngay conseillé nee na ko ci xel la ñuy wax ak yow woowoo ndeysaan mu ngi noonu nee na ko la ñuy wax ak de picc yaa ngay naaw ba tey jeexatul de waaw waaw picc yaa ngay libéré wu ndeysaan liberté liberté daa neex mas liberté dafa neex picc yaa ngay naaw Wassin Tóor mi hey bébé Elton a ngi noonu ci digg géew bi nee na ko man pare naa moom bébé Elton nee na pare na ndeysaan Wassin Tóor bébé Elton lamb ju neex moo ne ci digg géew bi diggante Wassin Tóor ak bébé Elton waa jotoon nañoo bëri am lu xew. merci beaucoup ndax saa am na lu <laughs> kenn ki door nañ ko mu daanu. waaye waaye ma barrière la. un cigare deux minutes woo bëri nga. xale la a bëgg. mbiru amateur yi a ko di wër. waaye. Bébé Elton arrière na ba génn saako yi nee a du ko wër. waaye jéem gi daal ma gis tey. ndeysaan. jéem gi daal oh. oh, oh, ma ceeb yi nee mas. ba nekk kër Cheikh naa la yërëm rek naa la yërëm rek. su ma la toppee dinaa la summi. ma ndax fi ngay waxee ak man yaa ngi sàqami sa gémmiñ mu ngi neex waxal. doo wax de waxal. ay waay ku mel ci mas. caaf caaf la yéegi. caaf Ndiaye la sant Ndiaye. Ndiaye la. rek naa ko muñal rek. ndeysaan waa Tuteur am na am na tiset bu mu yëkkati waaye am na ku leen sampal mel ni de. wóo. ndeysaan la lambu. a jàmm gën yaa ngay dem. ndeysaan xale yaa ngi tokkante ndeysaan Bébé Elton lu muy def nii ndeysaan Liss Ndiago ñëw na ci làmb ji de oh xale ak jàmm gën gi ndeysaan tarkindaa bi oh ndeysaan Liss Ndiago ngay xale baa ngi noonu ndeysaan Liss Ndiago a ngi noonu ndeysaanam ndeysaan Liss Ndiago ngi tuus moog caatu Jolof la waaye ndeysaan Abou Diassé ngi noonu ak Feugeule ak Siteu ndeysaan ñii ñëpp ñu tuddee seen bopp jàmm gën leen dëkk waa Liss Ndiago yaramam daa tàng de nee na nag ay wàcc xale yi daw ndeysaan Thiat Djolof buur na leen hey Liss Ndiago waay Ndiago or bi waay ndeysaan yaa koy tëggu ndeysaanam ay Liss Ndiago waay ndeysaanam gone yi daw nañ tëggu ko ndeysaanam liis waay gonay jaama gënay daaw nag dugg sede waaye xoolal ma waa kër Wassintor yi liñ def xoolal ma waa kër Wassintor yi waa ñaay cokkeer Medina xandaalu Rebeuss oh Ndeysaan Wassintor day daa indi lambu indi mbooloo Ndeysaanam diggante Wassintor. arbitre bi sifflé na Mass Ndeysaan Dimanche 6 mars 2022. combat social baa ngi noonu ci digg géew bi diggante Wassintor Bébelton Bébelton takkul dara bokkaas na léegi nee na ma dañuy xeex nee na ma tey lu mën a am dañuy xeex moom Bébelton. Wassintor na ko kaay xeex moo ma gënal kaay lekk waaye Wassintor hey mbooloo mu bari leen ci stade bi tey lamb jaa ngi noonu diggante Wassintor ak Bébé Elton ndeysaan Wassintor ak ñaari teg ndeysaan Wassintor Bébé Elton. Wassintor taxaw kon. Oh, woo la lamb maas. nga xamal lamb ji rek matal na grand combat. ndeysaan bii rek matal na grand combat Mass. maa la wax loolu kenn du bëri production. bari na ñu nekk ci lamb ji tey lamb ji moo fi téye. <laughs> hey mais dañu doon cokkaas na léegi waaye dalul. hey dajante nañ. coup door une deux. moom Bébelton. ndeysaan li leen fi defoon jël na ko. jël na ko waa si door jël na ko. Bébelton jàpp na. hey ku ne jàpp na ngeen mu ñoom ñaar. day daa bëre si. eh Wantor kal na ko lu mu xew eh Wantor daan na ko Wantor daan na Donaldson laa laa laa laa Wantor daan na Donaldson waas kaay eh waas waay xoolal ma mbooloo mi xoolal ma mbooloo Wantor bi xoolal ma lii Wantor da yaay di lambu nee naa la maas këram lañ dem mu jox ñu ceeb ceeb bu neex eh xoolal Wantor waaw waaw yow xoolal ma waas yow laa ilaaha illallaah xoolal Wantor daa mi mbéy sàbbi. xam na fu dem hey Wassintor waay Wassintor li la la xoolal waa kër Wassintor yi ndeysaan Wassintor waay hey oh Wassintor waay ma waa kër Wassi Mass ma la ñin ci làmb ji ndeysaan Wassi dóor ndeysaanam hoo stade baa ngi riir